jërë ngeen jëfati ak seen ànd ak télévision Futurs Médias dalee jàmm ci xibaaru marax mi ponk ya gën a fës bokk na ci euh, manifester bu kujje gi amal tey jilee rawatina ak Askan Wi ñu lànkal leen ko naam waaye teewul nag ña nga doon jéem a jàmmarloog euh, takk derrière place de la nation jafe woon na ñu yegg fa ñoom ñooñee euh, di manifester mu nekk nag bëccëg bu tàng ñi ngi xam le sax ni am na ci ab soxna soo xamante ni jële na ci ab gaañu gaañu xamaguñu nag dëgg-dëgg fu mu mujjee jamono ji waaye waaye nag la ñu xamle ca moom rek mooy eh, fi mu ne métti na ba ñu rawale ko eh, kër eh, docteur manifeste boobu it la ñu nemmee ko ca diwaanu Ziguinchor ndax ci jamono jooju it Guy Marius Sagna moom ma nga fa doon wane nag boppam dox na nag ba ca place bu Aline Sitoé Diatta foofee ca Ziguinchor ñu ne nag du yem tey ndax danoo fas yéene ay bis bi ñu dëgmal nag ñu daal di wanewaat seen bopp daanu yegg ba ci sous préfecture ba daal koy jébbalaat bataaxal ngir mu nangul leen doxu ñaxtu boobu ndax toogaayu ñaxtu ba sax laay wax mbaa boog manifeste ba ndax lu ñu fas Euh, amal la euh, Mame Mactar Gueye la ñuy dalal tey jile mooy gan gi euh, bu ONG Jamra maa ngi lay bu baax Mame Mactar waaw jërëjëf euh, soxna si dem di am yaakaar ne laaj ak tontu yi ñu fas yéene seq dinañ si jëlee njariñ lépp rek jëm ci jàmm réew mi incha allah daañu jëlee njariñ beneen ponk ci biir xibaar yi tàggat yaram euh, mu mel ni nag kon léegi tey mu sotti diggante Liverpool ak Bayern de Munich euh, mu ñeel nag Sadio Mané moomee war a nag dem kon ca almaañ ca club bu mag boobee mën fa jouer ñu ne nag kon kopparee daanaka booy xool muy transfert ba daanaka yemb na ñu ngi wax fanweeri million d'euros ak ñaar waaye mën na koo sax nag euh, sut ndax euh, ñi ngi ko njort ba ci ñeent fukki millions euh, ci euro kon transfert ba dafa mel ni léegi tey mu sotti bu fekkente ne yoon wi ñu tegu wàcc wuñu ko mbokk yi ponk yaa ngi nii bu ngeen taaxirloo tuuti ñu faram-fàccee xibaar yi. dale na jàmm ci xibaaru marax ni ma ko waxee woon ci euh, ndoxteel li ku jég politique gi doon manifester ni ki euh, tey ji li naam doonu leen ko lankaloon boobu yëpp euh, manifester tey yeggoon ca place de la nation jafe woon na laale mu mel ni metti woon na lool seen digganteeg takk der yi ku jégoogu waa coalition Yewwi Askan Wi jiite Ibrahima Diame bokkoon na ci suñuy ndaw yu groupe Futurs Médias yabaloon foofee Ibrahima Diame maa lay nuyu bu baax a baax Euh, jërëjëf Fatou Kiné Deme maa ngi lay fay bu baax a baax. ma ngoog Ibrahima loo ñu mën a tënk rek ci euh, manifester tey boobu. voilà liñ ci mën a tënk mooy que ne donc euh, manifestation yi ñoo ngi tàmbalee fii nga xam ne moom moo di cité kër góor gi fa la ñu xëyoon kon ci kër Ousmane Sonko ndax moom mooy njiitu Pastef mi nga xamante ne moom moo waroon génnee depuis fi nga xamante ne moom moo di këram. cité Kër Gorgui pour wutali place de de de l'obélisque mais Ousmane Sonko mënu mujjul mujjul génn këram julli gi sax defu ko parce que bi waxtu julli juma jote gars yi dañ ko ko gàntal kër ga da ngay gis ne euh, policiers yi dañ ko feesoon dell barrière ba euh, def ay barrières yi nga xamante ne moom mooy issue yi donc euh, ndaw yi loolu naqari leen ba tax na cité Kër Gorgui depuis ce matin Euh, chauffé woon na bu baax a baax li ko dalee kon ci rond ba dem ba ci euh, VDN ba ak beneen yoon bi dem ci euh, cité JVC foofu circulation bi xawoon na tagga tembe ndax ndaw yi lakkoon na fa ay ay pneu barré yoon bi policiers yi daal di intervenir mu doonoon nag lu méttee métti bu ñu fa jógee nag ndaw yi daal dinañ ñëw fi nga xamante ne moom moo di rond point liberté six foofu la ñu gontu kon daal di lakk ay pneu foofu noonu donc mu doonoon lu tàng tamit journée tey bi tax euh, ñu bëri ci commerçant yi ñoom it euh, seen liggéey dafa daal di woon yàqu daal euh, jëm nañ sax interroger foofu noonu ay commerçant ñu ne seen journée tey bi daanaka dafa nasax ndax nit ñi nga xamante ne ñu ngi doon jàmmarloog euh, ñi nga xamante ne ñoom ñoo di kon euh, policiers yi foofu tamit euh, ñu gis ne ndaw yi génnoon nañ bu baax a baax ndaw yi nag boo seetloo fat ci ne seen mouvement bi dañ koy def par étape bu ñu bi ñu jógee fi nga xamante ne moom moo di cité Keur yi dañu daal di rek ñëw fi nga xam ne moom moo di rond point Liberté 6 bi ñu jogee Liberté 6 nag actuellement fi ñu nekk actuellement nii moo di Euh, rond point euh, moo di kon ci autorite bi parce que euh, bi ñu gisee ne gars yi xaw nañ leen dominer parce que à chaque fois ñu gendarme yi dañuy def renfort daal di leen dominer mais présentement nii ñoo ngi doon lakk il y cinq minutes rek ay pneus donc circulation bi dañ ko dañ ko bloqué woon fi nga xam ne moom moo di autorite bi kon à hauteur de du stade Léopold Sédar Senghor donc fi la ndaw yi mujjee woon kon daal di lakk ay pneus gendarme yi daal di intervenir tamit wàccee euh, bi mu toll nii mu ngi mu ngi euh, demaat euh, ndànk-ndànk donc mu doonoon journée bu nga xamante ne journée bu métti la parce que ne surtout li ma doon wax ci suba si il faut que ma ñëwaat ci parce que gendarmerie ak policiers yi ñu waruñu waruñu ak ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo di journalistes yi war nañ mën a am war nañ mën a liggéey sur le terrain sans sans mu am animosité wala jàmmarloo. Ibrahima oui. Euh, euh, euh, balaa ngay jeexal sànq bi may wax ci ponk yi maa ngi fàttali dara ne am na kenn koo xamante ne jëlee na ci gaañu gaañu ba daal njoxtu nañ ne metti na xamuñu fan la mujjee rawale nañ ko kër docteur loolu également ndax mën nga ñu ci baaxee dara. oui foofu nag jo xam naa jo Mouhamed Jo Diop moom moo ñu fóot foogaloon dafa mel ni dafa am ndaw su nga xamante ne parce que waa waa waa waa sapeur pompier sax confirmé nañ ko ndaw su nga xamante ne ñàkk na ci bakkanam bu ma dégloo le chef des des sapeurs est defa ne waa ji dafa carbonisé donc euh, loolu tamit war nañ ko mën a leeral euh, nan yan anam la faatoo ma ngi dégg ci ci euh, sapeur pompier bi ñu muy mu koy confirmé mu confirmé na am na ndaw bu gaañu ci ki nga xamante ne moom moo di place de l'obélisque donc Mohamed Jojo journée bi yëpp moo ngi ko doon wax ñu waa ngi woon corps bi moo ngi woon ci waa waa waa sapeur pompier ñu def ko seen brancard yooyu lu yàgg yàgg ñu teg ko foofu donc euh, bi ko Makumba interrogé ci euh, sànq rek maa ngi koy dégg mu donc euh, mu mel ni kon am na ku ci ñàkk bakkanam voilà bakkanam mu doon jërëjëf ak euh, jërëjëf euh, leer na nañ Ibrahima Diame mi ngi noonu kon li ñu doon ragal daal mu mel ni am na balaa ñu jàll diwaanu Ziguinchor il faut que ma mataax nga dellusiwaat ci lii xew rawatina ak fi mu daanelee moom sunu ndaw li Ibrahima Diame ñu ngi wax ni am na ab soxna su ñàkk bakkanam muy lu doy waar yow manifeste bi déjà li ma lay njëkk laaj mooy noo ko jàngate ndax euh, euh, dañoo taxaw ne dañuy manifester lankal nañu leen ko am na jàmmaarloo bu tor dox na seen digganteeg euh, takk der yow noo jàngatee tey bi bëccëgu tey bi. waaye xam nga jërëjëf soxna Fatou Kiné mhm. xam nga mébétu manifester bi dara warulal ko. lu dul li ñuy gantal seen liste. Mhm. pour élection législative mhm. waaye nag dañu war a bàyyi xel ne processus électoral dëkk boo dem ña gën a sori. Sénégal ci sama démocratie fuuf États-Unis France amul benn processus électoral bu bu mucc ay à cent pour cent maanaam di tubaab di wax parfait amul waaye li ci am solo ñuy jëfee loolu chinois yi di wax naan c'est en faisant des erreurs qu'on apprend maanaam boo jógee ci processus électoral gi si ay rëq-rëq war nañu fexe buñ ci jógee ñu am lël boo xam ne parti prenante yëpp dañu toog ñu mën a jubbanti rëq-rëq yi ndax bu ñu fàttee pour joxe si benn exemple rek élection 1988 yi booboo gën a métti bi fuuf parce que boobu dañu couplé woon présidentielle ak législative yi waaye bañ ci jógee rëq-rëq yu bëri manifestation yu bëri contestation yu bëri lan la président Abdou Diouf def dafa créer lu ñuy wax le CC la commission cellulaire muy kuréel boo xam ne dafa fab société civile copte leen ci biir opposition ak seen i ñaxtu copte leen ci biir ba pare jël lépp nag teg ko ci kilifteefu un éminent magistrat constitutionnel muy Kéba mbay président Abdou Diouf ne leen xoolaat leen code bi càmbat leen ko boo leen paree ak loo leen ti tënk jël na engagement man président de la République ne duma ci soppi virgule te noonu la ko defee jur na njari ndax lii nga dégg tey mu di la présentation obligatoire de la pièce d'identité au moment du vote amul woon code consensuel bu 1992 moo ko indi parce que ñàkk présentation pièce dafa daan indi irrégularité yu bari dañuy gis ku ñëw jël carte électeur rek nga daan voté te carte électeur bi amul photo ma photo léegi ma ma ma ma woote léegi génn dajeeg sama benn dëkkandoo bu ñoo faat ki ne dem ma ne ko am demal nga woote yow nga woote avec la même carte nga génn jox sa umpaañ kooku woote jox nijaayam 30 personnes quarante mën a woote ci benn carte moo tax da nga daan gis bu résultat yi génne nit ñi dañ naan taf seen gémmiñ di ree dañ naan communauté rurale sàngam nombre de votants 2000 nombre d'inscrits mille nombre de votants 4000 muy indi scandale donc waxtaanu ko réglé Euh, mais tey bu ñu doon wax ne euh, dañuy situer les responsabilités ak fee yi am yëpp euh, ndax jàpp nga ni ñoom ñi ngi ci ñi ngi ci ci seen ci ci logique maanaam ñoom ñi nga xamante ne dañoo rejeté seen ñaari list muy wàllu yeewi tey ñu sàkk woon di manifester ñu lànkal leen ko teewul def nañu ko est-ce que tey bu ñu doon situer responsabilités yi lan la ñuy wax. parce que boo ko seetloo ñaari camp yëpp ku ne da nga amee laago. Mhm. parce que coalition opposition bi ñoom seen liste. direction générale des élections dafa leen amputé benn tànk ne leen liste titulaire bi baaxul. Mhm. coalition au pouvoir bi itam amee nañu laago dañ leen amputé benn tànk moo ne leen seen liste suppléant baaxul comme que loolu dafa nekk une situation inédite mosul am. Mhm. comme li xewoon en 92 rek buñ ci jógee ak jàmm ñun jàmm ñu ngi ñaan njiitu réew mi mu woote lël ñu rëq ñu jubbanti rëq-rëq yooyu ndax ëllëg mu bañati am. Mhm. waaye jàmmaarloo bi xeexoo bi. saagante bi gaañante bi du régler dara. Euh, te bakkan bi euh, rot tamit mënoon naa ñàkk ci euh, xibaar bi ñu jot. mënoon naa ñàkk ñu confirmer la mënoon naa ñàkk. mënoon naa ñàkk ndax xam nga passage à l'isoloir c'était pas obligatoire du temps de Abdou Diouf avant le code consensuel de 92 waaye c'était gênant ndax yow da ngay nekk baykat mere partie au pouvoir bi nga ne danaa profiter ci élection yi wa wane suma naxar mm-hmm. waaye nga ñëw ba ci bureau de vote bi président de bureau de baa ngi nii. c'est le président du comité rural mooy joxe engrais yi mooy joxe semence bi te amul isoloir da ngay mujje à contre-cœur voter pour le parti au lan moo ko jubbanti le code consensuel de 92 qui a fait que passer à l'isoloir obligatoire kon amul code bu amul rëq-rëq c'est avec l'expérience que dañu gis rëq-rëq yi léegi nag avec la pratique gis nañu rëq-rëq bu bees mosul am ba Sénégal amee indépendance ba léegi mooy ñaari liste ku ci ne amputé nañ la benn tànk parce que kenn mënul imaginer une liste de candidats députés bu amul titulaire une wala boog une liste de candidats députés bu amul suppléant parce que fi mu ne liste Benno Bokk Yaakaar kenn ñaanu ko yàlla benn député élu maari day taal yi gàntal dal ko ku koy remplacer. voilà comme que yi mësul am. Mhm. nañ ko waxtaane mhm. pour que buñ ci jógee ci jàmm. mu jubbantiku. ñu jubbanti ma dinañ dellusiwaat ak yow waaye da dañuy dem Sigicoor euh, ndax foofu yi xam ngeen ni euh, euh, ñooñee doon manifester tamit wane nañu seen bopp Guy mari Sagna moom ma nga woon foofu jiite coalition tête de liste Yewwi Wallu foofee ca diwaanu ko Sigicoor kon moom jot naa dox ba ca place bu Aline Sitoé Diatta mi ngi naqarlu nag gouvernement bi na muy doxalee ba ci manifester bi ñu leen tare tey jile ñu teewlu ay kàddoom sunu naataango ba ca diwaan bu Boubacar Diassi moo ko taataan. teewaay fii li ko waral bokk na ci li nga xam ne coalition Yewwi Askan Wi ak wàllu da ko bëgg a amal le 17 juin ca place de l'Obélisque bu Ndakaaru binjoo na ak Ziguinchor duñ ci des ginnaaw fekk naa ñu jëli bataaxal bi nga xam ne mu ngi bàyyeekoo ci préfet bu Ziguinchor bi ñuy xamal ne doxu ñaxtu bi dañ koo tere ndax jafe-jafe kaaraange ndax itam ne ñoom njort nañu ne moom préfet bu Ziguinchor njort na ne ah mën na am ay jafe-jafe yu am solo mooy trouble à l'ordre public ci doxu ñaxtu bi. jógewuma ndakaaru ñëw ba Ziguinchor ngir bañ a dox. bu trois heures jotee diggante terrain Jatiir jëm rond point Aline Sitoé Diatta ngir marche pacifiquement xeexuñu xulloowuñu fitna taxuñaa jóg dinañ marche pacifiquement du terrain de Jatiir jëm rond ma ngoog waaye du tee nag fa fee ca Sigicoor moom juróom-ñetti doomu aadama am nañu ay gaañu gaañu kenn ka ca ñooñe gaañu gaañu yu metti la am dañuy des fa fee ca diwaanug Sigicoor ak coordonnateur adjoint bu Pastef ba di Alassane ju moom nag ma ngay yëkkati ay kàddu moom it di addu ci manifester euh, tey jile fa fee ca Sigicoor euh, nag nee nag danañ manifester waat euh, ci ay bis bi ñu dëgmal ndax altine jii rek booy xool daanu dem ca sous préfecture ba ngir sàkku manifester te fas yéene def ñu teewlu ko ba tey ci micro Boubacar Diassi. dañu déposé benn ki manifestation pour que euh, xeex affaire ki boo xam ne dañu tere suñu liste ki yeewu askan bi donc loolu la ki la ki lañu bëggoon dox ñaxtu euh, tere njëtt ba fi euh, préfet interdit suñu marche bi loolu moo tax tey ñu ne loolu. ki dox ñaxtu constitution moo moo ñu ko may ñun dañuy def déclaration mais euh, préfet amul sañ-sañ di kii pour interdire ko ñu ne ñun il faut ñu ki marche par force loolu la ñuy def tey ñëw lii mooy suñu destination alhamdulilah alhamdulilah kii ñëw nañu ba euh, kii terrain kii comme que rond-point non pneu yooyu ay kii kii comme ko euh, suñu naxar parce que préfet waxu ki ki tere suñu manifestation suñu manifestation pacifique la tey lu ñu ki jénee comme ki alkaati buñ ko jëlam pour encadrer suñu euh, ki marche yëpp nay dox ci ci jàmm mais euh, def ñu loolu ñu empêché ñu jël ay ay takk der pour empêcher suñu marche pacifique mais ki comme que dès lundi nañu déposé waat si benn kii déclaration de marche ça chaque semaine nañ ko def Ziguinchor neex naare ma ngoog nii ndakaaru résister foofu noonu la ñu résister ca diwaanu Ziguinchor euh, Mame Mactar ñu ngi koy wax léegi euh, Ziguinchor juróom-ñetti doomu aadama jëlee nañ ci ay gaañu gaañu kenn am na ci gaañu gaañu bu metti waaye boo déggee euh, kàddu yi coordinateur bu Pastef ba foofee ñoom dañu fas yéene manifester waat ñu nangul leen ko sax amaana ñu ñàkk leen ko nangul waaye ay bis bi ñu dëgmal daal joxe nañu dig daje askan wa xam nga ndeyu sartu réew di constitution lu leer la wax na marche pacifique looy ñaan dafa nekk droit dañ ko soumettre au régime de la déclaration préalable article bi dal di ne chaque citoyen am nga sañ-sañ fésal sa ñaxtu sa naxar ak làmmiñ par la parole par la plume moo xam da nga koy bind wala par l'image ngay nataal waaye à condition yooyu ngay fësal mu bañ a porter atteinte à l'ordre public maanaam bu mu indi problème ci wàllu kaaraange te nee na nag dans tout ça dañ ko soumettre au de déclaration préalable maanaam da ngay yëgle rek waaye boo xasee ba yëgle nag hmm. ki yàlla dénk sañ-sañu mu saytu sa sakkuteef itinéraire beeg et moom moo am le dernier ci kaw mu nangu ko wala mu gàntal ko bu ko gàntalee nag day joxe li euh, juriste yi di wax ay motivation ne nangam ak nangam ak nangam euh, yàlla dogal nag euh, gouverneur daal di indi beneen élément supplémentaire ñaari fan yi ñu génn mm-hmm. mooy dafa fësal benn bataaxal wax ni code électoral nee na bu ñu demee ba mu des fanweeri fan pour campagne électorale bi ubbi xam nga campagne baa ñu ubbi buñ si yàlla yóbbu ak jàmm le fukki fan ci mois de juillet kon dugg nañ ci délai 30 jours yi nee na bu 30 jours yi jotee rek muy yéen taskatu xabaar yi muy formation politique yi ak code électoral na bépp xeetu xabaar bépp xeetu activité. bu niiru lu day ni tay fatal ay ni ngay propagandal benn camp kon nag ci phase boobu la ñu moo indi incompréhension bi. Mhm. alors kon moo tax ma wax ne rek lépp daal buñ ko waxtaanee rek dañ mën a déggoo waaye bu ku nekk toogee sa ruq ne maa am dëgg. autorisation ou danaa def que leneen doo ko fi defee. Mhm. parce que kaarange baa ngi taxaw. moo indi fitna. ñoom bi ngay wax juróom-benn yi. juróom-ñett doomu aadama yu am gaañ-gaañ yu metti mhm. ak kenn ku ñu wax naan mu ngi ci diggante dund ak dee ba am na ñu ne sax ñàkk na ba. kenn yooyu mën na ñàkk ci xibaar bi ñu mujjee jot. doguma la mois de mars bii passé. Mhm. ñun ak abbé Jacques Seck benn blessé moo amoon. mooy euh, Boubacar Ba bu na dañ ko amputé woon rek. dëgg la 16 ans la am xale bu ñu amputé à l'âge de ans lu bari dina yàqu si avenir mais bakkan ratagul woon mm-hmm. waaye ba ñu gàllankooree bu metti mm-hmm. ne du fi amee fukki bakken ak ñaar te mënoon naa ñàkk. Mhm. waxtaan daal mooy. mooy parce que parce que yooyu fi mu amee rek euh, mangook euh, dinañ la laaj laaj bu mujj waaye balaa boobu. Mhm. ñu xool yi ndax euh, tamit faw nga lancer message lan lay war a doon ci jamono ji ñu toll ndax xam naa ni metti na. Mhm. coalition jàmmee gox ba fële moom ca diwaanu Kaolack dañoo seeti ji woon xalif ba di Cheikh Mouhamadou Mahi Niass ngir waxtaan ak moom moom it ndax ku ne xam na ni liggéey ba mu def ca Soudan ba mu fa demee jàmm am na kon ci réew mi ak fi ñu ñi ngi xaar euh, kàddoom euh, jàmmi gox ba nag noonee la ñu euh, taxawee di sàkku rek ci xalif ba mu daal di ci taxaw nu mu gën a gaawee Pape mbay Diaw Faly Gueye coowal politique gi Macky Sall jël réew mi téye ko jël constitution bi téye ko jël justice bi téye ko. ñenn ci kujje gi taxawee fii di woo fitna ñoom ñu taxawee fay di leen saaga ndey ñu ne di saagante ndey jamono ji nga xam ne lan la sénégalais yi di xaar mooy naka la ñuy def ba mbay mii di ñëw ñu bay lu ñu dundee ñu ne ko sëriñ bi nag waxal. yow dem nga Soudan wax jàmm am jot na nga wax fii ci réew mi pour que nag jàmm jooju noonu ñu suñuy maam bàyyi fi ndaxte nag jàmm Sénégal dañ ne dafa nekk ci ker yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bu dee ci ker la nekk nag suñ ker googu buñ gisee gisee lu koy yàq ñoom ñi nga xam ne seen bàyyi ñoo ko fi ñaanoon dañuy ñëw waxtaan ci ak ñoom. nu mu gën a gaawee rek euh, balaa ma lay bàyyi euh, muy euh, wooteeg jàmm gi noo ko jàngatee ban kàddu ngay ngay mujjee. merci yi njort bu rafet. parce que da nga tëdd tudd gën a jëmm léegi bu def jaloori bu réer yi. Mm-hmm. ci suñu mbokk soudanais yi. juróom fukki waaso yoo xam ne lu ëpp fukki at ak juróom ñu nga fay defante yoo xam ne yu jéggi dayoo la ci bakkan kenn xamul nu mu toll moom benn jëmm boobu di Cheikh Mouhamed Ibrahima Mahi Niass jóg ñëpp naan dana sotteeg du sotti. yàlla def ñu daal di déposé wér gànnaay yëpp. comme que ñuy seeti nañ ko nag gëm naa ne bu jógee yëkkati kaddu sëñ Muntaxa Mbàkke euh, ayada allahu wa nasarahu wa amara fële ca Touba yëkkati kaddu. sëñ Babacar Sy Mansour yëkkati kaddu am naa yaakaar ne yàlla dana def ndox mu sedd incha allah. ma ñu koy jaajëfal bu baax a baax euh, Mame Mactar Guèye bu ONG euh, euh, Jamra balaa ñuy kon jàll ci tàggateeram ci tënk rek ñu wax ci marchand ambulant yi féete fële ca marché central bu Thiès ñoom nag ñu ngay yëglu ndax nee ñu dañu leen bëgg a jëlee ca barab yi ñu ne muy jaaykatu table ya ca marché central ba sax muy jaaykatu table ya ndax jamono jii nag ñu ngi waajal tabaski ñàkk nañu ay koppar yu bari maanaam jël nañu xaalis jëndee marchandise euh, tey ñu leen fay jëlee ba jébbal leen ab bataaxal pour ñu jóge fa na mu gën a gaawee ñu ne nag loolu daal duñu ko seetaan benn yoon kilifa yi nañ ci wax euh, Cheikh Anta Diop ak Seylatir ci diwaanu cees yi ñuy duppee ay centre sauvegarde ay xale yoo xam ñii ñuy duppee ay jaaykat ñuy toog ci taabal yi wala yor seen marchandise di taxaw ci tali yi ci fii ci Patarsen nekk ci marché central bu Thiès ñoom doon fësal seen naqar nee nañ dañ leen a jox ab sommation ngir ñu jóge fa ndax dañ leen fas yéene yëkkati. conjoncture Sénégal fi mu toll jafe-jafe yi fi mu toll. marchand yii fi nekk ñoo xam ni xale lu mu ci tuuti tuuti wala koo ci gis mu nekk taw responsable la te njaboot gu bari nekk ci ginnaaw kooku nga ñëw bëgg koo digër piir à la veille de la tabaski loolu wax dëgg yàlla ku ni njaboot googu yërëm nga leen da da jaaxal même bu fi dara la population bi bu ñu ñëwee marché central Thiès moom ñëpp xam nañ ko kon bu fekkente ni même bu ñu libéré woon day xat moom te it mbeddu mbeddu mar bu jë jaar ci biir marché moom munta yaatu fi ñu toll nii ñii def nañ ay prêt bancaire ñii lijjanti nañu xaalis def ko ci ay bagages dugal ko seen magasin magasin barki dem ba léegi ñu ngi calmer booy pour bañ benn histoire ñun jàmm la ñu oot. marchand ambulant yi nee nañ bañuñu sax ñu jëlee leen fi waaye dafa fekk ne sàkku nañu ngir ñu ubbi ay jataay toog ak préfet maire Thiès noor ngir ñu mën a waxtaane mbir mi xool yan saafara lañ ci war a mën a jël. pare nañ pour waxtaan pour jàmm am. lépp nañ ba pare jënd nañ ay bagages te dañ ko fas yéene jaay veille de tabaski la même bu fekkoon toon ni bëgg nañ ñoo dégër piir moment bi c'est pas opportun. jamono yi nag préfet bi ànd ak ay service technique am daanaka dugg nañ ci marché bi ñoom ñu gis ne saa yu fet di jub si marché bi day xat ba kenn du fi mën a jaar loolee tax ñu def lu nu mel. Euh, ca département bu Dagana moom euh, kon euh, fitna ga ngay wéy ci diggante sàmmkat ya ak baykat ya bi ci mujj rek am na benn sàmmkat bu ñu faat ci weer mai bi ñu weesu mu nekk nag lu metti lool loolu tax na ba ñenn ci kilifa diine yi taxaw nag ngir wax ca bokk na ci kii di Thierno Alpha Sow woolu na leen nag ñoom ñaar ñooñu muy ñu féete ca càmm gaag ñu féete ca bay ba mbay ma ngir nag ñu waxtaan ba juboo am ci seen biir waaye kilifay dëkk ba tamit ña ngay def seen kéemtalaay kàttan Ousseynou Diop. fan yii ñu génn jafe-jafe yu mag la ñu nemmeeku woon ci diggante baykat yi ak sàmmkat yi ci département bu Dagana moo tax nag kilifa dina bii di cer Thierno Alpha Sow daal di woote ndaje boo xamante ni kilifa yu bare woon nañ ko rawatina baykat yi ak sàmmkat yi. Ah, liggéey du mun a sotti baykat bi du du mun a béy sàmmkat bi du mun a sàmm donc jàmm ji nag lu koy andi mooy ñu waxtaan jéem déggoo si ay kàddu. ci kàddu sous-préfet nag daan na ñu signé charte de non violence boo xamante ni kenn waru ko jalgati muy charte boo xamante ni kenn ku ne da nga ci war a tënku ngir jafe-jafe dootul am. ñooy sàmm ñu fexe ba tant que mu ngi am mbéy tant que góobuñu ñu fexe ba xaw a sori tool yi te di gën a am solo mooy ñu fexe ba euh, sàmm guddi bi ñu mën ko éviter. baykat yi ak sàmmkat yi nga xamante ne nag ñoo nekk ci département bu Dagana nee ñu loolee dañ ci tënku ndaxte bu fekkee ni bëgg nañu jàmm loolee cotte mooy mën a tax beneen jafe-jafe du am seen diggante. puisse trouver des solutions définitives à la divagation il faut obligatoirement qu'on trouve des solutions aux éleveurs a il faut des zones de normalement jàmm lu war ma parce que ñu ni eh, ay amul wa waxtaan a am bu fekkee waxtaan paysans yi déglu nañu béykat yi béykat yi déglu nañu paysans yi autorité bi def na ci li ko war euh, appui conseil yi jàpp nañu ci jàmm dafay feeñ. département bu Dagana ñu nemmeeku saa su ne ay jafe-jafe di am ci diggante baykat yi ak sàmmkat yi fan yi ñu génn benn sàmmkat lañu fetaloon boobu ba léegi nag mu nga ca l'hôpital ñu ci bare na jàpp ni loolee waratul am ci gox bu nu mel. koy jaajëfal bu baax a baax Ousseynou Diop tàggat yaram ci tënk Sadio Mané nag mi ngi ci yoonu jëm euh, ca na de Munich bu Allemagne euh, moom international euh, sénégalais boobu nag mu mel ni tey déggoo daal diggante Liverpool ak na de Munich lu mën a nekk la ci lañ jëm boobee transfert kopparee nag daanaka teru na fanweeri million ak ñaar ci euro la ñu wax ñu ne sax nag mën na koo ëpp ñu ngi xaar lu tollu daanaka mbaa mu jege ko ñeent fukki million ci euro. Euh, mangook euh, foofu la ñuy jeexalee xibaar yi mbokk yi sant leen gërëm leen bu baax a baax léegi léegi euh, Cheikh Tidiane Diawo dina fi teew ngir jukki leen xibaar yi ci nasaraan jaa ngeen jëf